ñu ñëw si kaawu xam naa ne yàkkamti woo leen kaa boobu waaye man maa leen ni kaa piir dama leen di faale man non ñu ñëw si lan ban sujet waat la ñu ñëw si kaa maam booy maam Matar walla wala tonton Matar Gueye wala walla Matar Gueye wala maam Matar Gueye tons Matar Gueye wala père Matar Gueye wala monsieur Mactar Gueye wala son excellence Mactar Gueye noo leen ko woowee rek woo leen ma Gueye convoqué leen ma ko à la barre man convoqué leen ne maam Mactar Gueye à la barre leen koy bàyyee si dëkk bi lu nu wax rek mun ne dafa juum excusé wu na dañuy relater les faits dañuy relater les faits maam <laughs> Mactar Gueye xam liñ naa yàkkamti man dama laa yàkkamti woon te lépp nag dama koy teg ci tey ak teggin ndax du ma la dépassé ndax sama maam nga du ma ne sama baay nga de sama maam nga maam mataar ga yow mën nga ma maam mun nga ma nekk sax sama maamaati maam macha allah laf cat xam nga ñun ay xarit pël dañuy gaaw a màgg mais au fond fin fond ay xale lañ <laughs> ku nu xool suñu kanam rek xam na nun ay xale lañ suñu testeur xam na nun ay xale lañ <laughs> mën nga nekk suñu maam. yow Ablaye Wade sama goro li ngeen rawante ay âge bëriwul Mame Mactar Gueye na dafay défendre lu muy défendre fàttali leen ma Mame Mactar lu muy défendre nee na nee na day défendre cause islamique yeewaay Mame Mactar Gueye nee na mooy justice masqué waaw kay nee na mooy Hulk bi moom fi mu ne nii moom nee na day régulariser société bi ci jub nee na xale bu jubbati mu jubbanti la nee na moom islam ma ko tax a jug lu baax a ko tax a jug dafa réew mi ko tax a jug xam nga maam ma tey am nga bouton bu nekk fii buton buton bi man sànq laa remarqué am nga buton bu nekk fii gis nga sa bouton bu nekk fii fi mu nekk nii bul ut garab bu ko faj rek jàpp si réseaux sociaux yi la lu nu wax rek nga làqatu si ginnaaw islamique bi lu nu wax rek nga làqatu si ginnaaw islamique bi yow fii nga fi attaque rangu Mame Matar Gueye fàtte xaju fi Mame Boye fii nga fi attaqué rangu nga ne rangu wi diversification puberté publique euh, dévergondage accidenté fréquentation bordélique je ne défends pas rangu parce que comme je dis souvent chacun a ses principes ku nekk nag ak li la war ku nekk ak sa vision man waxuma sax kaawu rangu li def ak yooyu yëpp sama sa intéressé wuñu li ma intéressé mooy Mame Matar Ba ñëw génn ne non li kiy def nii nii nii nii kërëb kërëb man ba mu ko gisee mu génn Jamra dama ne ah le mec quand même il défend la cause noble il voilà redresser les mœurs ak les mœurs les infidélités <laughs> waaw kay séeri yi ma bëgg ngi noonu redresser les mœurs ak yooyu fekk Mame Mactar Ba moom dafa nekk ci benn système business making waaye loo nekk businessman ñoo la gën a nekk businessman ma joxe sama numéro salon 33 827 95 16 pour ku bëgg période bi ah. voilà samay wéwee ngi nii ba tey dañu gut macha allah lépp ci tabaski bi la woon voilà Dash Beauty Spa deux vingt vingt six en face seen gold Mama Talba yow loo nekk euh, businessman ñoo la gën a nekk businessman yow nga jug ñu gars yi yow jouru Saint-Valentin le 14 sa doom nekk auberge nga koy wër Mama Talba tubaab dafa ne la charité bien or la charité lan bien ordonnée commence par soi-même Mama Talba yow doo nettoyé sa kër balaa ngay nettoyé mii réew ha lu nu wax rek nga ne je m'excuse il s'est excusé il s'est excusé l'erreur est humaine taxaw naan waaw série yi euh, Françoise ak kii ak wanañ ko tuddee Mame Diarra ak kii yow bu nekkee ton ton ton le, le discours de Mame Matar Ba je suis désolée excusez-moi j'aimerais pas en arriver là mais c'est un discours qui est qui n'est même pas euh, il n'est même pas bien réfléchi en fait c'est un discours ki ka wax boo xoolee ki ka wax xam nga wax dafa am nit dina wax ñu naw la nga wax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waxee ñu ñu ñu naw la nga wax ñu ñu xeeb la Mame Makhtar Ba bu waxee nga naw ko bu jëfee nga xeeb ko yow fii dañuy recensé sa doom jour Saint-Valentin mu nekk auberge nga ñëw génn fi naan test de virginité il est vierge lu nu wóor lan moo nu wóor que il lu nu ci wóor fabriqué fii man mi nga xam ne bu ma neexee dem fii CTO wala dem Dantec ne leen le médecin Karim a ngi ñëw fabrication de de de de jox leen nu sanctionné ma defaral ma sama truc de virginité renouvelable sama <laughs> carte de virginité valable pour pour pour pour pour un an. Hmm? nga ñëw naan bii gis nañ ko élève vierge lan moo ñu ci wër auberge la nekkoon Saint-Valentin ak Faram yow lu jëntiwoo kaa boobu de nga ñëw naan waaw chrétien yeeg yeeg yi xam nga vous savez y yoo xam ne ça fait mal moi je suis musulmane donc je ni chrétienne ni whatever mais ça me fait mal dans le sens où bu nit tax wax ci wax ci beneen askan dara bu ñu ko banaliser bu ñu ne noo excusez wu na rek jeex na jeex na sa fait mal ñun fàtte nañ ko mais ñoom fàttewuñu ko Sénégal fii benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar maam Maktar Ba maam Maktar Ba islam moo la ko est-ce que est-ce que ñu jàng alxuraan dëgg-dëgg s'il vous plaît ngeen àtte ma est-ce que dañu islam dafa ne nga nga nga nga nga nga nga juger sa beneen moroom diine. islaam sant ñu loolu ñun kay ñun lu ñu xamee mooy yaatal yaatu jéggal ak jéllale islam kay sant ñu diviser maam Maktar Ba mu ñu wax mu génn benn message ne dafa juum gars yi applaudir ko demain il va refaire la même chose moi je pense pas que euh, euh ce qu'il ce que Mame Matar Ba a fait est, est, est, euh, euh, euh, est aussi est aussi passable que ça est aussi passable que ça ça fait mal ça fait mal c'est comme quand tu vas en France et qu'on te dit oui tous les musulmans c'est des assassins ils sont tous euh, voilà ils sont tous des terroristes mais ça fait mal Ça fait mal quand, quand, quand on entend euh, les blancs dire que nous, les musulmans, on est des terroristes. On a envie de se défendre. C'est de la même manière que quand aussi euh, on dit que les chrétiens euh, sont d'une mœurs légère ou qu'on devrait donner euh, certains noms d'artistes, qui, qui, certains noms d'acteurs qui font des, qui jouent des rôles, euh, euh, des, des, qui jouent des, des, des, rôles assez dégradants aux chrétiens. C'est ça, c'est démystifier. Tu commences à, à diviser, Mama Tarba. suñu waxee rek nga génne excusé wu naan yi nabu c'est par la peine d'en parler il s'est excusé une faute est moitié pardonnée il faut avouer xam ngeen seen semblant bi tant que génnewuñu ci suñu suñu semblant bi suñu suñu suñu suñu suñu espèce de de de de de fausse sutura gi on est dans une fausse sutura bu ñu waxee rek naan sutura ban sutura dëkk boo xam ne sutura la ñuy wax te chaque jour partout di jolli ban sutura moo fi nekk fii amatul sutura parce que ñi war a sutural te normalement normalement sutura wutuñu kenn les gens ils sont pressés de raconter de la merde et puis de venir s'excuser comme si de rien n'était et les gens qui disent oui c'est une faute mais quelle faute il a touché plus d'un parce que vous n'êtes pas chrétien c'est pour ça que vous dites oui non il y a des choses qui ne se disent pas Parce que si aujourd'hui quelqu'un, je sais pas, je m'appelle peut-être Hélène Faye, je me lève, je dis oui, euh, les musulmans sont comme ça, vous allez yéen ñi nga xam da ngeen topp kaa ba mu sës fii la Soumboulou wax villageois ngeen jàpp kaaw Soumboulou bi deux semaines yàlla bàyyi tax pourquoi vous avez pas pensé que Soumboulou s'est trompé vous avez tout tout tout tout tout tout tous les commentaires que tu lis les gens de ce pays là yow mën nga juumee bu keneen juumee non dafa juum il n'a pas à à à s'effacer comme s'il n'avait rien dit je suis désolée on va en parler on va en reparler tant qu'il le refera on va en parler jusqu'à ce qu'il se range Mame Ba c'est pas un enfant il n'a pas 15 ans il n'a pas la vingtaine c'est un vieux c'est un vieux baobab et un vieux baobab doit sortir des paroles de sage di jubóole mais pas di féddale ba di diviser naan diw moo baax kii jullit ñi baax ñi baaxuñu kii moo baax Marie moo euh, euh, Khadija moo baax kii ah, ah, euh, Françoise baaxul pour la moom mooy kan Mame bu dara dara da leer ci ci bàmmeelam moom dara leerlu ko man mii dara leerlu ma yéen mii dara leerlu leen lu tax du ñu maandu rek ci ci ci affaire yi wax ci série infidèle mais bul bul bul bul bul indexé benn xeet benn religion nee na série neexuñ la te Ibou Guèye patron série infidèle ni ñu koy waxee directeur, oh, directeur Romalan, oh, euh, de, de, de, je sais pas, de la série Infidèle, il a clairement dit que si la série ne vous plaît pas, mais ne la regardez pas. Pourquoi vous aimez regarder des choses qui ne vous aimez pas et au fond, vous aimez pas. Mais ça, regardez, simple. Infidèle, je l'aime pas. Je ne regarde pas Infidèle. Parce que si tu n'aimes pas et que tu regardes, tu feras encore en parler. C'est tout. Bougolen ko mais ngeen taxaw di sétane dañ kumpa wessu lool bougo kay demal sa Oui, il s'est trompé, une faute m'a été pardonnée, non, non, non, non, non, non, non, n'importe quoi, vous. Franchement, Maktarba, ma Maktarba, je sais pas, tonton Maktarba, avant d'ouvrir la bouche, faudrait vraiment réfléchir à la tournée, euh, pas sept fois, pour toi, ce sera 14 fois, tourne le double. Voilà, parce qu'à ton âge, moi, j'ai honte, à 75 ans, je sais pas, tu as quel âge 75 ans, 69 ans, tu n'es pas là à, à, à, à, comment dire, à rassembler une, une petite nation, tu es là, tu divises. pourquoi parce que tu veux que les gens t'acclament wala tu veux avoir quelques quelques en gros bu dee sa business bi ni nga ko mën a jàppee génnal si business bi business bi baaxul nangoo nga dem port nga boole la ak ñi nekk port nga def docker sax wala nga nekk chef de quartier sax di signer ay kii ay certificat ay kii ni ñu koy waxee certificat certificat de quartier wala certificat de domicile Mame Ba doo nekk doo doo doo nekk chef de quartier ngir yàlla te bañu oh la merde il raconte que de Et puis quand on parle, il dit, moi, tu défends quelle cause on, Ta propre fille a été surprise dans un auberge. si tu veux commencer à éduquer les enfants des autres, comment déjà par éduquer tes enfants toi-même Éduque déjà tes enfants. Maintenant, quand tu as éduqué tes enfants et qu'on a vu ah, vraiment les enfants de Maman Taba une très bonne éducation, léegi nag nous on peut prendre exemple sur ça. yow toog tes enfants sont là le 14 14 5 Saint-Valentin ñun féetewuñ ko sax ñun ñii ñun ñii mu dem auberge. ñu kin kidnappé fuñ kenn kidnappé wu ko faram kay la àndal auberge génn fii dañu sonal di jooy danga fàtte say vidéo yi nga fi doon jooy waaw moom Matar Ba waaye xaaral rek man li ma la wax sax sedd na daal di nga ci légal koo xam ne dina la wax loo xam ne du tàkk du fay nga nekk chef de quartier wala nga nekk délégué délégué de quartier wala nga nekk euh, xawma lan loo war a nekk sax chef de syndicat yow loo xam rek te bàyyi parole bi parce que tu racontes que de la merde tout tu défends whatever, tu défends aucune cause. Tu es là juste pour te faire un nom et des sous, c'est tout. Tu ne défends aucune cause. N'importe quoi. Et puis as, ta tête là, on dirait, euh, je sais pas quoi, avec ton gros bouton sur le visage. Là. Tu vas pas soigner, soigner ton bouton là, et puis c'est toi, tu es là, tu soignes les enfants des gens. Tu t'es raté. Et t'es raté. Moi-même, je, je, je, je, suis très, euh, je suis très, euh, je suis très euh, correcte, langage, langagement parlant. Aïe, mom, je t'ai raté. J'aurais dû te bien te ramasser là. Tu es là, tu n'organises pas ta famille, c'est toi que tu vas arranger. Euh, c'est ça l'hypocrisie ici. Tu as tes problèmes, tu les laisses, tu vas régler les problèmes des gens, soit disant que oui, on ne devrait pas utiliser le nom de Mamdiara, non, non, non, je, je vais, on va être Heureusement que les chrétiens du Sénégal, ils sont vraiment d'un tempérament, euh, ils sont vraiment modèles quoi. Pour pas, pour un rien, ils font pas de bruit, voilà. parce que bëri nañ teggin trop bëgg bëri nañ yar et puis voilà dañuy am seen kilifa voilà mais bu nekkoon ñeneen nga ko wax dootoo ko defati laa waroon kidnappé dóor la ba nga bëgg a dee bàyyi la su ñu waxee rek dafa juum tu représentes quelque chose tu représentes tu représentes une organisme c'est pas comme ça que tu devrais parler publiquement quand même. Mamatar kay du ma ko wax au soin de visage mënu ci moom dara. kii dañ ko war def xam naa ne botoomam bii nii mooy mooy euh, man xam nga j'ai fait peu de la médecine aussi donc botoom bi nekk fii xam naa mooy mooy mooy mooy kii mooy information yu war a jóge ci cerveau bi war a ñëw si bopp bi ci da koy bouton bi moo koy bloqué moo tax Mame Matar Ba lu muy wax yëpp du du si bàyyi xel xaw ma dafa am Alzheimer xaw ma non de la merde avec son gros bouton là en plus il est on dirait euh, un fantôme puis il est noir, et puis il est là, à la une, Mama Tarba, et puis il est là, avec son gros bouton. Père, business bi du foofu. du dangaa bëgg business ñëwoon nu business fii fi ngay business du noonu parce que boo deful nàng dañ ñu jaxase te ñun ay xeex la ñuy bañ on a jamais eu de de de truc euh, euh, le Sénégal est un pays laïque les chrétiens les musulmans ils on a toujours vécu comme ça. moi, j'ai fait des... Tout, tout, tout, tout, tout, comment dire, tout, tout mon, mon, mon circuit scolaire, je l'ai fait à, dans les écoles catholiques. J'ai été à Sainte-Bernadette, euh, Sacré-Cœur, le collège. On a tous été là-bas. Donc, on vit toujours avec les chrétiens sur de bons termes. On a cet échange-là pendant les fêtes, euh, le ngalar, le mouton, euh, pendant les fêtes de Tabaski, de Pâques, pendant les fêtes de Pâques et tout. yow ñaata yoon nga lekk ngalaxu chrétien gis nga yow chrétien da la waroon jàpp kidnappé dóor la ba nga bëgg a dee am nga sens sax man su ma nekkoon chrétien xam naa maa kii commando mission commando bi maa koy gérer.